asalaamualeykum mbokk yéen ñu nuy topp ci Ali Imran TV dañuy dikk nag ci xibaar bu tiis bi xew ca hôpitalu maam Abdou Aziz Sy Dabakh ca Tiwaawan di lakk gu metti gu fa am tax nag ba fukki liir ak benn ñàkk ca seen bakkan eh, jamono ji nag eh, jëwriñ ju ñu dénk biir réew mi ma nga woon ca barab ba kii di njiitum réew mi Macky Sall moom mu xaatimu bataaxel jaarale ko nag ci lënd gi eh, ngir rek dal di naqarlu mbir mi tey masawu mboolem rek njaboot yi ak wa Sénégal gépp tey ñaan nag ñu ubb ci ak lu ñutu ngir xam rek lu waral mbin euh, mbir mu ni mel waaye wi askan wi ñoom itam nag di xam le ni daal ñoom daal dakkal nañ booleem seen yënguy politique diir ñetti fan nekkee noon it waa lëkkatoo gi di aar euh, Sénégal ñoom itam daal ñu ngi ñaawlu mbir yi tey ñaan rek ñu ubbi ci ay euh, lu ñutu mbokk yi wéy leen di nu topp ci Ali Imran TV dara du leen rëcc nag ci actualité yi xew ci biir réew mi ak bitim réew jërë ngeen jëf ci teewlu bi